السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوني واتجيت في سنو إميشن أرمن المنوير في جدة كاراكتو. فسيني وقتاني كي فيس بي لم بيجامونو. تموي فيبر بوي ولاتي. دي بلا بو يالا واتي تي كوسوف. لان موتاح يالا واتيكو. وارنا نيو خالات سنو بوب نخلان. ay moy yu bari ak ay bakkar yu bari dañu xamne tamit natup suñu borom la bu yalla wacce ngir ñu wat suñu xel euh, ci euh, delo wat ci moom te fek bayyi wuñ bakkar yi bakkar yu bon yu bari ak lek yi yu bon yu haram yi nga xamne yalla daf ko aramal virus bu ñew dem nañ japp ne benen dina ñewat Euh, té luñu dal ñun ñoko tek suñu القرآن لنا وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم aydikum ene ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس سبب نك ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بودي فيروس لا بونيو كري غير دانيل يين بويسانس su boobaa it nañu xam ne alxuraan nee na wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen fabriqué ci seeni loxo loo xam ne da leen di jëmee ci ak alkandel ci ak ak ci alkande te nag waa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin na ngeen di rafetal ndax yàlla dafa bëgg euh, ñiy rafetal te bu fekkee dañ koo créé ngir daanal yenn puissance yi nañu jàpp ne euh, puissance ba ko tax a jóg bu daanoo it du ca yem ndax wattaqu fitnatan لا تصيبن الذين ظلموا منكم قصه فتنة دو يام تي بوب بروم كون واخ اي دو يام تي بوب بروم كون لول نيو بايكو خيل بو باخ دا نيي خول بو باخ لي نيو ليك اك لي نيو نان ناخ فال ينظر الانسان الى طعامه يلا نينا نيت كي لي خول نكو لي مي ليك نكاي خول بو باخ تايت نيو خامني فيبر بي يالا واتي تي كاو سوف القران دا فوخ ني بيب مصيبه بو خامتني دالنا لا مو خام lu man di doon na nga xam ne yàlla bindoon na ko ci yow bu ko yàlla bindee ci yow it musiba ba wala balaa ba wala feebar bu ba nekkoon ba Inde yow di nga jël fii avion dem foofu mu dal la wala foo mën a toog fii ak lu mu nëbbatu nëbbatu feebar bi dana la fekk dal la qul la yusibanaa illa ma kataba allahu lana wa mawlana wa ala allahi falyatawakkal almu'minuun dañu xam ne sunu borom nag mooy docteur bu mag bi mooy fajkat bu mag bi mooy docteur docteur yi kon nañ ko ñaan mu faj mbooleem balaa yi nga xam ne wàcc na ak virus yi nga xam mi ngi solal sonal jamono ji bay taxawal économie yi ndax wa ida maritu fa huwa yashfini ñu xam ne it delluwaat ci yàlla delluwaat ci alquran ndax wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaa wa rahmatu lil muminin te sëñ Tuubaa nee na huwa mooy saafara bépp si ja bépp waaye nag kami saafara mooy li man alayhi tamada ki ca sukkandiku topp ay ndigalam ak iteram kon solution bi mooy tuub ñaan yàlla ndax addu'a huwal ibad ñaan mooy ak jaamu yàlla waaye addu'a silahu mu'min ñaan mooy ngànnaayu jullit te wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadli ñu xam ne ñaan gog mo wax moy solution bi ta sun borom mom koo ko ñaan rek lay xaar neena wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha daani bu nit ki ñaané rek dina nangu ñaanam tay neena as ud'uni uduuni astajib lakum ñaan len mo ma nangu seen ñaan kon nañu ñaan yàlla sak sarax wat delu wat suñu xel ci euh ta nangu ay dogalam conseiller bima ci ciy joxe nag ci maladie bi lembe jamono muy virus bu tasaro ba mën a wàllaate wàll bu gaaw ba mën a rayaate conseil bi ma ciy joxe mooy euh, ñu farlu fajaru fagaru faju balaa mu ngi faagaagal nañuy xool bu baax li ñuy lekk li ñuy naan te ñu set sell civilisé set ci suñu yaram set ci suñuy dëkkuwaay set ci suñuy nekkuwaay tey sol masque yi te bañ ci am benn complexe moytu tamit yenn événement yi ak dajaloo bu bari yi nga yu bari yi nga xam ne amul benn njariñ ci lislaam te balaa ñuy lekk ñu raxasu bu ñu génnee suñuy kër bu ñu ñëwee ñu raxas suñuy loxo moytu jàkkarloo ak nit di saqat wala ngay tisli moytu joxante loxo yu bari yi moytu mbalit yi ñuy tuur ci mbedd yi ak ndox yi te boo yëgee loo daawul yëg ci sa yaram nga gaaw dem hôpital fagaru moo gën faju kon lama waxoon rek na ngeen dem dëkki cité fajaa na ngeen cité li ngeen lekk te ngeen di faju loolu dina tax suñu borom musal ñi ci feebar bi euh, moytu jaxasoo yu bari yi ak lépp loo xam ne feebar bi mën na cee jaare wàllante tasaaroo développé suuf nag muy daje boo xam ne farata la ci diine farata nag laa wax mel ne julli jumaa yi ak yu ni mel bu ñuy dem ci jumaa yi ñu jël suñuy matukaay bu baax sol ay masque wut ay antimicrobe bu jëree sax ñu sol ay gants ñu sol ko euh, waaye tëj jumaa yi ndax feebar bii moom loolu ëpp na te loolu du solution boo tëjee néegu yàlla yi na nga fexe ba tëjaale sa néeg te tëj néegu yàlla yi dem sa néeg terewul feebar bi bu yàlla dogalee mën na laa fekk sa kër kon loolu moom tout sauf ça daara alxuraan tamit ñu utal leen ay matukaay ay saabu ay eau jàppale leen bu baax ndax euh, euh, tey moytu tamit naan dañuy tëj daara yeeg wala julli jumaa yi wala yu ni mel ndax loolu moom musiba la ndax yonent bi sa alayhi wa sallam nee na isa stawjiba naasu l xiqaaba nazara allahu sixaara fi lmakaatibi fa yadfau nee na sunu borom bu nit ñi defee luy waral mbugal ba mu war a wàccee ay balaa bu xoolee ba gis xale yi nekk ci daara yi di jàng day daldi delluwaat mbugal moom te nag li ma jaaxal xale yaa ngi jàng waaye mbugal yaa ngi wàcc kon ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp bu baax ndax xale yi jàng ñun ñu ngi leen di toppatoo wala ñu ngi leen di bàyyi xel ndax ñu ngi bàyyi xel seen aq ak déet te yow doomu aadama bi boo bëggee mucc ci xeeti balaa yi ak virus yi bul xaar ba dégg feebar boo xam ne salte moo koy waral ngay set setal avant tout euh, ndax set ci l'islam la bokk an nadhafatu min al iman kon ñi setone doli leen seenug set ñi salté won jëm leen a set ndax set moy lepp te ñuy moytoo nag di euh fièvre té nañu xamné nit ki moy premier médecin wu bopam yow yaay médecin bi njëkk ci sa bop bopp euh, yeen ñi nekk ci dëkk yi nga xamné ne fa la feebar ba am tok leen bu leen ñëw te it bu kenn dem ci dëkk yooyu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moon na feebar buy wàllee réew mu mu am bu kenn genn bu fa kenn dugg ba yàlla wàcc yërmandeem te sallallahu alayhi wa sallam nee na farra min al majzumi kama tafirru min al asadi na ngeen daw feebar yi wàllee comme ni ngeen di dawee gaynde na ngeen ko dawee noonu te nag la darara wala dirara boo amee feebar bi toogal bul génn di lor kenn waaye nag wala dirara yow mi ko amagul bul dem fa ko am di fa loro loolu it ñu daal koy bàyyi xel bu baax kon bépp événement diine bu dul farata ci lislaam war nañ koo mën a annuler euh, ba yeneen jimbi jamono oh, loolu ñu bàyyi ko xel bu baax waaye bu dee farata nag kooku moom c'est autre chose. yàlla wàccee euh, ay bala bul ko dawee ci ak jaamu yàlla daw ko ci leneen waaye suuf ak jaamu yàlla kon événement yi nga xam ne du farata ci diine lu ñu sopp rek la yooyu mën nañ koo annuler. bu ko defee kenn ku ci nekk daal di toog sa kër ñaan def say istixfaar jégalu yàlla ak yu ni mel ak événement yi nga xam ne ay caaxaan rek la te jëmul ci yàlla nañu xam ne yii yëpp nattu yi sunu borom rek la sunu borom rek moo ñuy nattu walaqad fatanna alladina min qablihim fala yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna alkadibin naa leen nattu teg leen ay balaa ci façon bu ne nag xool ndax li ngeen wax dëgg la ci yéen wala ay fenkat yéen ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وانك نغا بيغل منكدي وبشر الصابرين نيغا خاند بو نات نيوي رك ني دال دي لوات ليپ تي يالا دال دي مون خامنا يالا رك مو في نيك ньоญو موي الذين اذا اصابتهم مصيبه داني دلوات سين بوب تي يالا دال قالوا انا لله وانا اليه راجعون ньоญو داي عليهم صلوات من ربهم ورحمه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يلا ميغليني بريباريل اي خيوال اكي يرماندي تا نيوني رك لا يالا غيندي كون داك بو ني يالا تيغي ناتو بو مو واني دارا سي سوني اكتيفيتي جامو يالا امنا ньо خامني نك يا حديث بي لا ني تكتلو بكو خياس سي يني موي لما نزل في المدينه وابل صحيح طلب النبي صلى الله عليه وسلم آه، من المنادي ان يقول وينادي الصلاه في بيوتكم بام بن xewé ci madina yonent bi sallallahu alaihi wasallam fo xon ne kadim ne ko waxal kat yi nañ julli seen biir keur ñepp xam nañ ci l'islam yi jang fiq yëpp xam nañ ne même taw bo xamne dafa jaxasoog am ban ak yu ni mel nit ki man na tok ci kanam bañ dem julli ji euh, bu fekkente tamit nit ki dafa amé ay bor bu génné ñu sonal ko man naa toog ci kanam bañ dem julli ji wayé doomu aadama ño tollu fo xamanteni ci sàggan ci jaamu yalla am ci yo xamne kenn waru leen ko wax te tej ay juma ndax yu mel ni mom lolu sax dafa rafetul ci diggante jaam bi ak moo ak kon loolu it ñu dal koy bàyyi xel bu baax te jamono jooju bokkul ak jamono jii ndax lan matukaay yi am amutoon te la waraloon loolu euh, du lii kon mën nañoo def lépp lu diine santaane euh, euh, te muy farata te ñuy fagaru boo ñuy dem ci jumaa yi ut ay masque sol ay gants ut ay antimicrobe moytu joxante loxo yi te ku julli ba noppi nga delluwaat sa kër te bu ñuy julli ñu am tuuti distance te it nag nañu sensibiliser nit ñi bu ñuy lekk ñu wax bismillah paani raxasu yi ñuy tekk ñu koy moytu ndax loolu ak salte rek la ku bëgg raxasu ñu sotti la waaye raxasu ku ñu war sa morom raxasu loolu euh, rafetul nañu moytu tamit lekk yi lekk ci mbedd yi ñii euh, jaay ci mbedd yi tamit ñeen di gën a yokku set gi te ñu moytu waxu daanu kat yi ndax ñaari médecin ñoo am médecin wu bii faj sa ruux ak bii faj sa yaram bii faj sa ruux mooy guide spirituel bii faj sa yaram mooy médecin yi kon nañu xam ne sëriñ bi moom li mu digal taalibe yi lenn rek la mooy nañu topp diine te diine jooju ñu topp mu ànd ak jamono ah, kon nañu bàyyi xel loolu baax gis naa ci sax ay image yoo xam ne àgg nañ ci di tëj ah, kaaba ga bu dee man sama gis-gis ak niveau bi ma waxee ak fi ma toll dafay mel ne kunna natamanna an namuuta fiiha waaye wa andama ata al mawt harab na minhu ñun ñëpp dañ daan ñaan wala dañuy ñaan kenn ku ne dem deewee ji ci Kaaba ga waaye ba dee ñëwee rek ñun ñëpp a daw Kaaba gi te loolu te kenn xamul lu muy bu fekkee nag dañoo tëj jumaa yi ci zahir baatin bi ñun nañu jàpp ne yàlla moo ñu dàq ci ay néegam yàlla moo ñu dàq ci ay néegam nag la tax yàlla dàq ñu ci ay néegam kon ñun war nañoo xoolaat suñu bopp bu baax te nag nañu xam ne albaytu la yaxlu min laa yaxlu min ta min kaaba gi moom du ñàkk mukk ku koy wër ndax bu ko nit ñi warul ñeneen dinañ ko wër te euh, bu nit ñi demee bàyyi kaaba ga wan ko ginnaaw waratuñ ko ba ay picc ñëw di ko wër kon ñun war nañoo xoolaat suñu bopp bu baax te euh, foofu day xaraman amin euh, xorom la boo xam ne yàllaa fa def sécurité boppam kon comme yàllaa fa def sécurité boppam ñun dem nañ ba sécurité boobu gëmatuñ ko ragal nañ ñu daldi daw bàyyi ko fa bàyyi leneen ci mbindee suñu borom yi ñëw di ko wër kon ñun war nañoo xoolaat suñu bopp bu baax euh, dañoo xam ne lépp loo ragal a ah, kooku moom farra minhu da nga koy daw waaye boo ragalee yàlla yàlla nee na fafiru ilallah daw leen jëm ci man nit moom lu mu ragal da koy daw waaye boo ragalee yàlla day daw da daw jëm ci moom loo ragal rek farra minhu da nga koy daw waaye boo ragalee yàlla yàlla nee na fafiru ilallah kon bu fekkee ragal nañ yàlla nañ daw jëm ci yàlla bu ñu ragal leneen nit nit ñi nag ragalatuñ yàlla waaye ragal nañ dee euh, te ab julit lu xew da ko war a delloowaat ci yàlla boroomam subhanahu wa taala waaye warul def ay calcul économique euh, ñun moom dañoo tubaabise suñu lépp te ab julit da nga war a yàllaaliser sa lépp ab julit moom da ngaa war a yàllaaliser sa lépp waaye waroo jël sa lépp di ko tubaabise loolu kon ñi daal koy bàyyi xel bu baax a baax ma ñëw nag ci ñaan yi nga xam ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax ne bu ngeen demee ba toll ci jamono joo xam ne jamono yi euh, mbas la wala jamono yi euh, joo xam ne balaa dafa wàcci na ngeen ñaan ñaan ji yàlla dina leen ci musal incha allah rabbi dinga ci mucc ñaan googu moo nekk nii allahumma inni audu bika min albarasi wal junuuni wal juzaami wa min sayyi il ñaan ji boo ko ñaanee ci jamono joo xam ne virus yu bon yu mel nii wala feebar yu bon yu mel nii dafa tasaaroo bay rey nit ñi boo ko ñaanee suñ borom dina la dal di musal te Serigne Touba Xaadimu Rasuul nee na ci cercle jawaahir yi ñaan gi ku ko jàng ci jamono yi feebar bu mën a doon yàlla dina la musal sa giiru dun ñaan googu mooy lan moo nekk nii alhamdulillahi allazi aafaana mimma btalaaka bihi wa faddalana ala kathirin min xalqihi tafdila nee na boo ko waxee benn yoon da ngay dal di sujjoot ci suuf daldi di siggiwaat boo ko defee benn feebar boo xamante ni xew na ci jamono tam nekk am mbas mbaa balaa bu yàlla wàcce dula la walla lii tamit boo ko bindee sa yaram muy feebar bu mu mën a doon kenn mun la ko walla moo nekk nii fa lamma aslama wa tallahu lil jabini lil jabini kooku moom mën nga koo bind sax en français boo ko mënta bind euh, en euh, kon boo ko bindee sa yaram kenn du la feebar kon fi may tëje moy nañu tuubal yàlla balonté ak yaatal xol yi moytu iñaanante bi ak soxrante bi tay ñaan yàlla mo musal ñi ci fébar yi moytu tamit lek yu harami euh ak bép fébar bo xamné xétu virus la yu mel ni tay xew ci jamono tay ñu delloowaat nak suñu xel ci yàlla nangu ay dogalam tay ñaan ko yërmandem ñaan ko mu defal ñu gudd fan ak wér ak mujju rafet ak xéewal bi jahi sallallahu alayhi wasallam بحق القرآن وببركة خادم الرسول والسلام على من تبع الهدى والسلام عليكم ورحمة الله نيجي سنتو ودكار أتيبو تنجيتال سرين أك سن سلام بي من خامنة موني في ياتل بلبو ليجي بيني ليجي لسن برام في نيمان كو دف موميت نيجي نان لبلو خامنة أمنين كوفي ñu euh, bokko ko mom ak personnel dakar act yep ya barru ya latif ya muafi ya man lahu amru ya shafi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 خلق الإنسان